man day la Walfadjri ñëwoon fii laaj ma ci affaire match bi maa ngi leen gis naa ñetti vert jaune rouge. ñetti match yëpp dañuy gañe. gis naa ñetti verte jaune rouge. dama bëgg àdduna bi yëpp dégg lii may wax man lépp lu may wax dama koy dogu ci laa ilaha illallah muhammad rasulullah man du ma ragal. yàlla rek laa ragal ak yéen si yàlla Muhammad xanaa ma jox doomu aadama cër lu ma wax dama naan maa ko wax lu ma waxul dama naan waxuma ko ma ne leen gis naa ñetti vert jaune rouge benn match bi passé na am nañu yaakaar ci yàlla ne yeneen yeneen ñaari match yi mën nañ ci may ndam def ko débat am na ñoo xam ne xam nañ ne seet ba mën na waaye bëgguñu seet ba wax ne noppalu nañ ma ba sonn ma lànk ndax kuy wodoo làmmiñ boo noppee rafle su nekkoon man ak man donc Sénégal day jël coupe taxawuma fenn Sénégal day jël coupe bi parce que tollaguñu woon ci coupe bi dama leen ne yeneen yeneen ñaari match yi dese ci kàttanu yàlla am nañ ci yaakaar ndax damaa gis ñetti vert jaune rouge. waaw mais ñetti verte jaune rouge yooyu mais ñetti match yi ñu def yëpp benn bi la ñu gañe ñaari si des bii dañ ñu gañe bii ñu gañe ko ñetti verte sax beneen deuxième match bi sax dañu koo dañu koo dañu ko dañu koo naroon la door dañoo am chance nul ndax maanaam ñi nga xam ne dañuy soppi buñ nee suba la lañ koy lañ lañ lañ koy dindi. <laughs> nopp dawate dañu soppi victoire bi kon loolu nga bëgg a wax. dégguloo li ma la wax Sénégal pour mu jëm kanam day metti heure di waroon naa fekk Sénégal jël kubi kubi kubi kubi kubi kub waaye dafa am ñoo xam ne ñoo nekk ci suuf ñoo xam ne nangu mu ñoo feeñ te nit ñi nga xam ne yàlla may na leen ñuy wax li ñuy wax dañ naan dañ leen di fen loo looloo ma dal waaye la ma gisoon démb laa ak tey ak suba ci kattanu yàlla naan man mii Selbé Ndom man maa ko wax xam nga lu ma jaaxal si yow saa yoo gisee bu bu ëllëgee bu fekkee loolu amul ngay ne ñoo soppi victoire mais yow kat moo am jotu loo wax rek ñu soppi ko. bëri na dañ ma ko def barki dem moo njaay la fi ab sëriñ Modou loo ñëw ay une heure et quelques du matin benn xale bu góor boo xam ne ba Modou loo di bëri Gris Bordeaux xale bu góor boobu moom moom moom may indi la xale yi ay t ñëw fii. sëriñ ba toog ki sama biir saal ma xam ne bu fu ñu tudd Modou Lo man su ma su ma demul rek dañuy yaakaar ne leneen la damaa daw wala leneen ndax wax naa yàlla dëpp li ma wax kon man saa su ne man damay gore Sénégalais damaa bëgg àdduna bi xam ne Selbé gor la giir laa gor laa lu ma wax dama naan maa ko wax lu ma waxut dama naan waxuma ko loolu laa bëgg ñu xam dofuma jinne jàpp ma ñi may traité malade mental du ma benn malade mental. léegi nag la war a yóbbu fenn ak fay jël ndax léegi moom nga moom. yàlla na yàlla na malade mental mental yëpp mel ni man. si wax mu loo xamante ne li ngay wax yëpp dara de. ñaata yoon laa fi wax mu am waaye man benn nit laa man benn nit laa bu ma téeméer ak juróom fukk téeméer ñoo may man man nit kese laa non du jinne du ma rab te duma demu en vrai dire. yàlla dafa bëgg dëgg selbe benn jigéen la boo xam ne li muy gis moom lay wax li may gis laay wax su amee moom laay wax su amut moom laay wax parce que loolu lii laa gis man du ma daw. yéen nga ne Sénégal mën na jël coupe bi. wala waxuma coupe de. ah mais man coupe laa dégg. Ah, yow loolu nga dégg da ngaa ñëw ci ndey mbilli gi dangay laaj. ndey mbili gi moo la ne dogg na ko ci baat ci barke laa ilaha illallah muhammad rasulullahi ngaangu ma fenn senegal day jël coupe en vrai dire su ma neexoon du ma la jël waaye kon day fekk man su ma deret bi xam ne dangaa daw kon nga xam ne man su ma deret du deretu dëgg kon nga xam ne man du ma doomu séeréer Sénégal yàgg naa fee joxe ay ndam booba gars yi naan daguñu yaa ngi dégg ba ñu xamee ne kii buñ ko téyewul dana egg foo xam ne du leen neex dinaa leen sut ba ma ca amee étage bi ba tey na Serigne si comment commencé sama kaw promoteur yi commencé wax ji commencé ñuy reporter ji ci làmb ji commencé wax ji commencé su ma su ma amee wax mu ñu yàq ko damaa damaa war a sant yàlla jul seen si yàlla Muhammad la ma waxoon rek wa man kaana yaabudu muhammadan fa inna muhammadan qad tufiya wa man kaana yaabudu llaha fa inna allaha xayu laa yamuutu ku gëm ne Selbé Ndom mën naa seet bu la neexee ñëw ku ko gëmul xayrun nga toog si sa kër. mais mais dafa me da nga da nga medd ni ngay waxee ni ak xaal la def sa blouson mi li koy waaj non il faut ma mer parce que ku ci nekk senegal am na boroomu xam-xam. bari na tabaarakallah bari na façon tarixa bu nekk fi nekk ku ci nekk am nga waay waay waay dof yi nañ leen faj seen xam-xam yi ñuy exploité di yàqal équipe Sénégal bi ñu yàqal yàqaluñu équipe Sénégal mooy man je suis fière d'être sénégalaise kenn mënu maa génne xoolal dama damaa dem Petersen jënd samay vert jaune rouge yaa ngi dégg man si suis fière d'être sénégalaise maa gënoon a bëgg Sénégal am coupe man si suis née au Sénégal je suis fière d'être sénégalaise Sénégal laa juddoo bu ma dee fi may suul damaa buggoon sax Sénégal jël coupe bi dama dem jënd samay écharpe jël samay rasta ma sa am dara Sénégal dañoo am benn euh, euh, virus bu nekk ci seen sang am na ci nag ñoo xam ne gore nañu mais am na ci ñoo xam ne dañuy fàtte ne Selbé Ndom taxaw na fi ne Balla Gaye dina daan yëkk ni ci wetu ndeyjoor loolu ñu naan du dëgg yàlla def mu daane ko ci wetu ndeyjoor nañu kon kay boobu lu tax ëlbati wuñ boo xool ëlbati wuñ moom mais booba débutante la mais booba booba débutante laa dañuy xool ndax kii li muy wax dëgg la wala dëgg ñii naan dëgg la ñii naan du dëgg ma ñëwati fa Bombardier Tapha Tine ma taxaw ne leen deret dina bëri te kaawa dina am tollu ca barabu sëñ Fallou ca buntu buntu jumaa ja Lamine Samba woo ma ma ne ko leen duma wax kan mooy daan de ma koy daan waaye ci kattanu yàlla am nañu yaakaar ci yàlla ne deret dana bari booba kenn jógalagul selbe mais R plus <laughs> la commencé nag nday man tollu moon nii di tollu moon nii léegi nag xalaat boobu da laa dul dafa te xalaatuma kenn kenn du ma indil cardiaque wala ñu indil ma cancer je si bien je suis fière d'être sénégalaise nañ ma ba ma liggéey lu waay mën Sénégal rëy na télé yi bëri na rajo yi bëri na internet baa ngi fi la nga mën wane ko dund ki dund sa njaboot lépp loo am nga maye ko te ñu may ma su ma jàmm neex na jeex na su ma jàmm nañ ma may su ma jàmm mënuñu maa tere wax